njiital Pastef di usmaan Sonko tey ci àjjuma ji nag ñii di waay takk yi daal di nañ koy teg loxo ginnaaw bi mu jullee jee juma ba noppi rek ci la ñu ko daal di teg loxo avocat bi di ki nga xamanteni modi Juan Branco dal di dëggal xibaar bu ni mel mom ak ki nga xamanteni modi moo di El Hadj Ndiaye moom itam daal di deugal bi le xibar mom El malik Ndiaye sax mo yore ko ñi nga xamanteni ñoo di wa Pastef ci fatali nak mom jital di Ousmane Sonko si ciow li doxon ci digeentem ak ki nga xamanteni modi Adji Sarr bañ ko àttee ba nopi daanon nañ ko ñaari ati kaso yo xamanteni war nako teud ak it ben ko bo xamante ni war nako ko jox ki di Adji Sarr muy li nga xamante ni moo di ndàmpaayam jamono ji ñuy wax ak yéen nag xamaguñu ana lan moo waral ñu daal di teg loxo njiital Pastef di Ousmane Sonko lu si mën a am dinañu ci dellu si waat ngir gën leen si indil ay leeral.